Fafa TV. الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا الحمد لله القائل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق كبيرة ولكن أكثرهم لا يعلمون الحمد لله الذي بيده ملك السماوات والأرضين الحمد لله الذي بيده الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين mbokk yi gannaaw ba ñu santee sunu borom ñu ngi julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala jamii saadatina al anbiyaa wal mursalin wa nusalli wa nusallimu alayhi wa ala ashaabihi ridwanullahi alayhim ajmain wa ala man tabiahum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anh mbokk yi jarul guddal ci kàddug arab li ñuy njëkk a def mooy feeñal sunu cant fedd li sunu cant ci kenn ki nga xam ne moom rekk a yeyoo muy borom asamaan ak suuf te nee na ñaari mbindeef yure rëy yii ak li ci diggante bi lañ ca xam lañ ca xamut genn kàddu rek a tax mu bind leen muy lan alxaq muy dëggam gi kon dëgg ci lañu bind asamaan ak suuf ak li ci diggante bi dëgg moomu di tur di aw turam mu tuddee boppam alxaq moo tax mu yebal mboolem ñim yebal ci ay anbiya u ak i mursaluun sant leen lan jëfee xaq jàngal nit ñi xaq ñu ànd ak ñoom di ko jëfe mbooleem téere bu mos a wàccee ci kaw suuf téere booba alxaq lañ koy tuddee kon diina ji diinay xàq la diinay dëgg la turam bokk na ci turam dëgg dëgg la bokk na ci turu diina yi dëgg bokk ci turi suñu borom bi tabaaraka wa dëgg tuddee na boppam dëgg ni asamaan ak suuf it dëgg tax ñu tabax ko kon dëgg màgg na màgg na màggaay goo xam ne ku ko bëgg suufeel dangay sonn rekk waaye du sotti tedd nga gu rëy la suñ borom defal ko doomu aadama mooy mu indil ko alxaq am ñu ko xam nangu ko ne ca def ci seen dund lépp waaye it teewul am na ñu ko xamut ñu ngi sant nag suñ borom subhanahu wa taala bam leen boolee ci ñi xam alxaq jamono yiñ ma fi jëlee ku xamul woon lan mooy solos xaq solos dëgg wallahi du ñeme waxal dëgg ndax mbir ma muy neen giñ yëkkati woon teg ko ci sunu kaw funki woon na lool màggoon na lool ba ku yàlla wërsëgalut xol boo xam ne dëgg rekk a ca ne wallaahi du ñeme yëkkati làmmiñam wax ci lii te yéen yàlla wërsëgal na leen alhamdulilahi rabbil alamin moo tax gën naa sant julliti Sénégal yii ndax keroog yaakaar naa bañ ñu jàppee ñii nga xam ne ñoom laa bokkaloon bureau bi sëñ Omar Thiam mii diwaa waa Mérina Baye Thiam Baye Guèye Male ñoom ñoo représenté Mérina ci bureau bi ak sëñ Alioune Niass ak sëñ Alioune Thiam Male boole kook sëñ Moustapha Mbacke mii ci penc mi représenté mbooleem kuy wuyoo murit ñoom sëriñ góor a Diop di waa daayiratul mustarsidin wal mustarsidaat sëriñ Ahmad si représenté fi waa Tiwaawoon sëriñ Pape Kane yàlla ko yàlla yërëm ñun ñëpp nañ wax ne yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko bokk nañ ci ñi fi jiitu ñoo njëkk a yëkkati keroog ay déclaration yi xàq déclaration yi dëgg yëkkati ko ca kaw keroog bañ ma yóbboo ndar néeg biñ ma dugal ca njëlbeenu yoon chambre 6 dama agsi rek chef de chambre bi jóg jox ma loxo ne ma ndaw ma ne ko yow de gañe nga ma mu ne ma ñun dañ laa xam ñëwaguloo ndax keroog bañ la jàppee la sunub sëriñ def ci yow déclaration yoo xam ne ñun ñëpp ñaanoon yàlla gis la waaw yàlla moomale la suñu néeg bi loolu dañ koy sante yàlla kon jullit ñi jërë ngeen jëf ju àndagul ak wàcc lii nag danañ ci jàngee lu bari mën nañ cee jàngee lu bari ndeke xibaar la suñ borom waxoon ne xibaar bu ñëwatee ci yow càmbar ko looluy dëgg càmbar ko bu baax gëstu ko ba am ca lu leer door caa wax bu dee jëf nga door caa jëf loolu benn étape la waaye bu bàyyi ko ci feneen ñëw ci yow ñu wax ko ci sa mbokkum jullit alxuraan lu mu wax fatabayyanu feneen mu ne law la is sami'tumuuhu zanna almu'minuuna walmu'minaatu bi anfusihim xayra wa qaalu haada ifkum mubin yar boobu nañ ko jëlaat mbokki jullit ñi kontaan naa ci jullit ñi bañ jotee ci xibaar bi dañ taxaw ne du dëgg jërë ngeen jëf wallahi siggi ngeen siggil ngeen dëgg siggi ngeen siggil ngeen dëgg siggil ngeen yàlla subhanahu wa siggil ngeen rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wallahi siggil ngeen kitaabullah ndax da ngeen a jëfee santaaneem zanna almuminuuna walmuminaatu bi anfusihim xayra nee na boo déggatee ñu wax dara ci sa mbokkum jullit dellul ci sa bopp nga ne ndax lii danaa ko def déedéet duma ko def kon kiñ ko waxal defu ko daw lu jafe nañ ko ji nañ ko dekkalaat ndax jamono bi jot nañ ñu dekkalaat laay boobu ndax xibaar bi ni muy ñëwee ndeke ak na muy tëddee danay waro lool man biñ ma yóbboo ba fañ ma yóbbu ñu may enquête di ma waxi wax damay leen man de lii ngeen wax yëguma ko xawma ko ci yéen laa ko déggee ci yéen ñii enquêteurs yi ci yéen laa ko déggee bañ taxawee it keroog ci tribunal nee naa leen su fekkee ñun ñooy association malfaiteur yal na malfaiteurs yi bari ci réew mi waaw su fekkee ñun ñii ñooy malfaiteurs yi waaye waaye réew mi yëpp yal nañ di malfaiteur ndax malfaiteur boo xam ne ma soo jam nit pusa waxuma laa kotti lay set waxuma laa jam paaka waxuma laa sàcc alalam guddi waxuma laa leneen ak leneen ak leneen bu malfaiteurs yi yëpp meloon nii day yéen police ngeen dem noppalu ji alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla wallahi waaye nag lii du fi gan 1905 yéen a ngi fàttaliku de mag ñu bari fii lañ leen génne réew mi taal seeni daara waaw daaray piir ku ko taal ñoom daara yi nekkoon fii ci saalum bëri fi lool ku lim juum ku leen taal ñoom ku rey Cheikh Omarul Fuutiyu rahimahullahu tabaraka wa taala ñoom ku fi bundu xataaloon Maodo si rahimahullahu tabaraka wa taala ñoom ku fi bundu xataaloon maam Abdoulaye Niass ba mu tax koo dem Gàmbi ñoom ku fi bundu xataaloon Cheikh Ahmad Bamba rahimahullahu tabaraka wa taala yóbbu ko Gabon ñoom ku ko yóbbuwaat Sarsara ñoom ñoo fi la fi nekkoon fi nekk ba tey allahu akbar la fi nekkoon na fi nekk rek du fi gan dara jógu fi nag dara du fi bees diina ji suñ borom nee na ku jóg pour jéem koo sigil danaa la nattu moo tax yéen ñëpp pare leen pour dékku nattu bi man dey dama ne su ma faatu woon ca kaso ba dama naan alhamdulillahi rabbil alamin ndax lan dama gestu gis Sénégal yépp jàppale dëgg sama xel dal ma ne lii mënuñ ci dara waaye nag alhamdulillah xale yii doon ñëw ak mag ñii doon ñëw xam nañu procès bi ni demee yépp lépp xam nañ ko topp nañ ko ba ca biir ndeke dara amu ca waxoon naa ko gendarmerie ne leen dee leen toppatoowaat renseignement yi su accepté ci yéen dee leen ko xoolaat bu baax tribunal it wax naa ko fa ne leen dee leen ko xoolaat bu baax ndax ci renseignement ñoom ci lañuy sukkandiku te it dañ leen a dénk réew mi ñu war a assurer sécurité réew mi bu ñu leen indilee fausse information ndax nañ leen il faut ñu jóg kon ka leen jox information bu fausse moo leen dugal ci luñ xamut. bu boobaa nag dugal nga police dugal nga gendarmerie dugal nga juge d'instruction dugal nga procureur dugal nga ñëpp waaye jërëjëfe avocat yi ñoom itam foofu laay commencé ndax man day xaw moon métier avocat wax dëgg man mosuma fekkee procès fu ñu koy déroulé déroulé ba mu sotti maa ngi koy door a fekkee nii te ndeke ñoom fa ñuy taxaw di wax ñoom doo nga am sañ-sañu wax loo xam-xam yow mayuñ la nga taxaw wax foofu avocat doo nga fay wax bëri xam-xam taxul ñu may la nga wax moo tax may leen yàlla jox na leen métier mu diis muy lan aar dëgg waaye gis nañ fa avocat yoo xam ne dafa mel ni suñ borom da leen a tànnal dëgg li may wax nit ñi xam nañ ko taxaw aar dëgg ci nam gën a matee def ca seen waxtu def ca seen xam-xam def ci seen yitte ba mat sëkk mu dara desut lu dul war lan àtte suñu borom indi fa yeneen juge yoo xam ne ñoom itam tànneef la ñu gis yooyu taxaw ne liñ waxoon dara amu ci sant yàlla la ndax buñ taxawoon dëggal ko it day dem kon jar nañoo ñaanal bu baax ci place yooyu ñu taxawee ndiir soo su bëgg naa cee nekk avocat lool nee naa leen su ma doonaatoon ndaw tey comme défendre dëgg rek ma tax a jóg te su ma sol robb bi duma ko mën a défendre foofa danaa danaa porter robb bi ñëw fii di défendre dëgg waaw waaw bu ko defee nag jotaay bi yàgg na kilifa yaa ngi fi ñu ngi leen di baalu àq kilifa yi ñu ngi leen di baalu àq sëriñ Souley sëriñ Cheikh ñoom ñooy sunuy xalifa sëriñ Modou waruma fi woon a sax jël kàddu waaye comme ñoo ma jox ndigal ne naa wax ma wax ci seen kàddu sonn ngeen lool waaye nag yàlla du yenn nit ci lum attanut la tax suñ borom subhanahu wa taala jël yeen bi teg leen ko sëñ Suley mu teg ko ci sa kaw nga jiitu ci seen kanam daf la seet ba mu wér ko ne àttan nga ko moo tax mu yen la ko yéen ñii sës ci kawam it ngeen taxaw temm jàppale ko ca deltuwu leen gannaaw benn yoon bis bu set ma ne leen toog leen ak sëriñ seex daayu ma lee sëriñ man ku lim ku jum ngeen baal maa ngi lim ñii dañ di mag ñi rek ñoom sëriñ Maniru mënuma leen a ñàkk a tudd ndax ñooy ñooy ñooy kilifa yi sës rek ci man di samay kilifa waaye wax naa ci bu may tàmbali ne jullit ñëpp a jóg loolu rek doy na kilifa diina yi yëg nañ seen taxawaay ci biir mbir mi ku ci waxul ci kawit dem nga ci suuf wax ndax dafa di lu diis nga wax ci mbir ca kaw mu ñàkk faju moo tax kilifa yu bari bu ñuy wax ci mbir dañ koy jaaree ca suuf wax bu sottee baax na bu sottiwut kenn du yëg ne sàkk woon nañ kat ñu gàntal leen kon ñu ngi leen di sant ñoom kilifa yi bu baax di sant association islamique yi yëpp bi dun istisna commencé ko ci mbootaay yilimaan yi mbootaay googu ñuy tuddee nit dëgg nga xam ne ay xale ñoo ci ne ay gune rek ñoo ci ne ak am yaakaar te kat ma laajte gune yi ñu ne ma ay rappeur lañ ma ne ah la sama bàyyi daan wax daan wax ne gune day bu fekkente ne waxi ka bind maam lay wax nee na ko nekkatut gune waaw gune bu dee wax waxi ka bind maam ah mu ne kooku nekkatut xale de ñoom ay xale lañ ci jëmm waaye mag lañ ci maana yaakaar naa ñu ngi fii ci jotaay bi euh, riis al waxda jamaat ibaadi rahman al fala daarul istiqaama ci gàttal ñëpp gannaaw buñ tuddee mbootaay yu diine yu mag yi di al muridiya al qadiriya ñoom laa njëkk lim fii ne ñoom ñëpp a jógandoor amu ci intervention bu ñu yëgut kon nag yàlla sigil na leen mbir xew na ngeen défendre ko ne déet liñ wax du dëgg ngóor si liñ wax amut ci moom héey buñ ko toppoon ba am <laughs> buñ ko toppoon di ko topp ba ca cëppaandooy ga ñu ne ah ndeke am na yéen moom dara dootu leen jar dara dootu leen jar wallaay ndeysaan waaye nag alhamdulillah bañ ko toppee ba ca mujj ga ña waxoon waxaat ne ah lañ waxoon kat dara amu ca ñu ne dafa yor fital de fital goo xam ne duñ ko génnee de fital ga ba tey ji génne wuñ ko jërëjëf wallaay ndeysaan benn pistolet bu xomaag la boo xam ne dama ko sànni woon ca gees ga moo tax kenn génnewu ko ba fii ñu toog ba tey fit sant yàlla rek loolaa leen dese sant yàlla la bu baax ñu tëj ñu ci aw weer nee nañ ci gàttal daan mbokki jullit ñi jërë ngeen jëf yal na yàlla fayal ñu leen yiw wa wane ngeen seen xiir ci lislaam wane ngeen seen bëgg ci lislaam la ko commencé ba génne ndakaaru ba fii ñu ñëw bu ngeen gisee ngeen yéex ngeen yéex ñoo gis yoon wi dafa bëri taxaw taxaw te foofi taxaw ñu ne faw nga taxaw wax fi ay kàddu door a jàll mbooloo yu romb ci yoon yu bari na loolu nag lépp li muy tegtale yaakaar la yan na yàlla màggalaat dëgg ci xoli ñooñ dëgg yal na suñ borom subhaanahu wa taala jëmbataat dëgg ci xoli ñooñ dëgg dëgg màgg fi ñoom ba yiir seeni bët ba mën a gis mukk neen waxuma laag nag di gis màggaay yu neen mbaa ñu koy ragal yal na dëgg fees sunu xol ba yiir ñu ñu mën a gisati neen waxuma laaj nag di màggal neen mbaa di ko ragal gis nga xàq moomu ñu wax wallahi mooy mujjee suuf si am ah, man de amu ma ci sikki sàkk moom man de moom lay liggéeyal te yéen it ak kenn amu ci sikki sàkk dénd bii ci loxol dëgg lay mujj biñ ma laajee da ngay woote charia ma ne awma beneen woote bu dul charia ndax suñu mag ñi woote wuñu woon lu dul charia ñoom ñëpp nag yonentu yi kenn mosu cee woote lenn lu dul asharia lu tax ñuy woote lenn lu dul asharia te gëm nañ ne ki la sàkk yow nit def ay tiwo ci sa biir yaram deret di ca daw di suuxat yaram wi 24 heures sur 24 jëmm ju màgg jooju borom xam-xam bu rëy boobu asamaan ak suuf jébbalul ko yoon wi mu tëral képp moo mën a doxal kaw suuf wallahi weneen yoon wudul wi fi lislaam andi jaar ca alkare képp la wallahi ndax yonent ko wax sallallahu alayhi wa daf ne bàyyi naa leen alal mahajjati albayda ليلها كنهارها تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك mu ne bàyyi naa leen ci xàll wu amul tal amul xàmmeewul guddeeg bëccëg dafa leer naññi mu ne ku na ma alku kay teggi tànkam ci yoon woowa wax jooju jar na de mu ne ku nam ma alku rek kay teggi tànkam ci yoon wii ma leen bàyyil fii ah bu boobaa suñu ñu weneen yoon pour remplacer ko ko ndax kooka texe la ñu bëggal wala alkare alkare képp mbokk yi jot na ñu seetaat suñu jaayanteeg yàlla subhanahu wa bakkan yi moomuñu ko alal yi moomuñu ko dañ koo jaay boroom mu dig ñu aljanna dig ñu ngërëmam adduna amal xayaatu dunia illa mataaul gurur sëriñ Saaliyu Sow mii tey sëriñ Omar Sall sëriñ Aliyun Ka bëri nañ fii sëriñ Pape Kan fi ko bàyyi woon maam imaam Mbay Sekk fi ko bàyyi woon imaam sëriñ Mbay Géey fi lañ ko bàyyi woon Serigne Omar Ndiaye ilman ratib bu gànjaay fi lañ ko bàyyi woon bi ñuy dem fi lañ bàyyi woon Serigne Cheikh Tidiane si ñoom ñëpp yal na yàlla yërëm leen fi lañ bàyyi woon Serigne Abdoul Aziz si fi lañ bàyyi woon Serigne Sidi Muxtar Mbacke ñoom ñëpp yal yàlla yërëm leen di jégal leen ana ñu tey fekk nañ seen liggéey yal na yàlla yërëm leen di jégal leen du ñu raw suba ñu fekk leen ñun itam. kenn tax si kenn saxu fi ku xam ñun ñii ku ci xam ku kum ci wóor dana dana dana dana fekkee ngoonam déet wóoru ci kenn xanaa yaakaar yal na yàlla guddal nag fan yi waaye kenn ci ñun wóorut ko ne jant na ko fi soy dund bu gàtt boobu nag jarut dara ñii ñu tudd ñëpp yal na yàlla yërëm leen te jéggal leen ndeysaan ku ci mel ni Serigne Saliou Sow mii dañ ma wan ay vidéo muy seede ci mbir mii ci lal bi mu tëddoon fekk def na ci ay seede yu ko jiitu wuy ji boromam yàlla ko yàlla mu jégal ko ñoom ñëpp yàlla yàlla yërëm leen te jégal leen ngeen baal ñu àq ci guddal gi kon ñu bàyyi mag ñi fi teew incha allahu sëriñ Abdul Qadir Mbacke mu ngi fi eh, sëriñ waaw mhm. waaw waaw. kon ñu def nii. ñu toog. waaw. waaw. ñaar ñaar ah, alamin am na presse boo xam ne moom itam ba mbir mi commencé ba fii ñu toog dañu di góor góorgóorlu yaakaar naa bu ngeen dégloo rajo yi télévision yi surtout réseaux sociaux yi ñoom ñooy leeral mbir mi toujours xale yi ngeen di gis. nu mbir mi demee rek ñoom ñoo koy génne yóbbu ko ci internet bi mu dem ci àdduna bi yëpp jërë ngeen jëf yal yàlla fay leen seen yiw muy soxna Sële soxna Ñas sëriñ Ismaïla Sow kulim jum jërë ngeen jëf jasakumullahu xayran allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fi lalamina innaka hamidun majid rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashadan rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashadan rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman waj'alna min warasati anbiyaika wa rusulika wa siddiqika wa shuhadaika wa salihika wa xasuna ulaika rafiqa allahuma ijcalna min xamalati hadyi alqur'ani alkarim wa min alaamilina bi hadyi alqur'ani alkarim wa sunnati nabiyi almustafa alkarim salawatullahi wasalaamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajmain allahuma ijcalna mimman yudaficuuna an alxaq yudaficuuna an addin يدافعون عن الهدى اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اجعلنا ممن يحيون بالإسلام ويحيون الإسلام واجعلنا مسلمين حقا لا مبدلين ولا مغيرين برحمتك يا أرحم الراحمين allahuma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wassalaamu aleykum Fafa TV